waaw xam nga ci suñu euh, culture balaa ngaa jël décision yoo xam ne ay décision yu rëy la foog nga diisoo sa baay yi foog nga diisoo ñi nga xam ne ñooy sa kilifa ñooy kilifa diine rawatina euh, xalif général moo tax balaa ma jël décision bi nga xam ne fas naa ko jël fas naa ko yéene jël euh, vendredi incha allah dama woon tàggu ko di ko koy expliquer expliquer lu tax ma nar a jóg euh, seet nag sàkku ay ñaanam ak euh, ni ma ko gisee maa ngi ciy sant yàlla nag te incha allah ni ma ko waxee woon sànq. àjjuma sobee yàlla dans l'après-midi am na déclaration bu ma war a def. ci la ak élection yi na a ñëw. Mm-hmm. tey yow sa jàngat waaw jafe-jafe yi bëri na waaye defe naa bu ñëpp toogee ci te waxtaan ci defe naa mën nañu am bunt yoo xam ne Sénégal dana jëm kanam. sànq jàmm jàmmi Casamance waaw xam naa nag ne euh, jafe-jafe yi wàññi na defe naa ni gouvernement bii nag ci wàll jooju def na defe naa li mu waroon a def kon nag ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp pour jàmm ji nga xam ne mooy li ñuy wax paix définitive maanaam jàmm ji nga xam ne mooy mooy li nga xam ne ñëpp ñu ngi koy xaar. ñu am ko te incha allah xam naa ni suñu mag yi xalif général ak ñeneen bu ñu ñaanee suñu borom pour jàmm ji dellu si wóor na ma ne dina dellu si. waaw loolu di ko xam bu àjjuma incha allah. jërëjëf mbokk yi ni seetaan ci 28 Pro TV ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci eh, yi nga xam ne moom mooy eh, ñaari rakk ya ca Ndar di 5 septembre moom la ñuy fas yéene waajal nii di màggali ko foofu la ca eh, Ndar di bi nga xam ne moom fa la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul julle woon ñaari rakk yi ñu ngi nag fii nga xam ne moom mooy buntu kër parrain édition 2018 bi nga xam ne moom ñu ngi ko jagleel juróom-ñaareelu xalifu Serigne tubaa Khadim Rasoul di seex Sidil Mokhtar Mbacké borom juróom-ñaari sorol moom mi nga xam ne moom mooy parrain yëpp ren bi euh, ñu fekk fii nag euh, ki nga xam ne moom mooy njabootam euh, ñuy wàccaay gis nga nag fii moom la ñëpp di déparé bokk na ci kilifa ak yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew yu bëree bëri ku ci nekk jël nga say matuwaay yi nga xam ne moom moo war yëpp ci bés bi ba fas yéene nag jubal yi ca dëkk ba fu ñu fa yeggee nag fa li nga xam ne moom mooy Makabira Gaye foofu nag moom mooy bërëb escale bi nga xam ne nii moom la ñuy fas yéene toog dalal fa délégation parrain bi ñu fas yéene fa xéewlu bu buñ fa xéwloo ba pare rek daal di jubal yi ndar nag fa nga xam ne nii foofu la ñuy dalal euh, délégation parrain bi ci kër Massouran Souran gi nga xam ne moom moom foofu la ñuy accueillir ci euh, comité bi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di waa kuréelu ñaar rakka yi kon nag mbokk yi dañuy ànd ak yéen ci li nga xam ne moom mooy jëm ci waajtaay bi ci ay interview bu ko defee nag euh, bu ñu yeggee ba ci bërëb yooyu nga xam ne foofu la ñu war a dal euh, fas yéene fa àggale ngeen ak waxtaan bi mu nekk euh, vingt Pro TV di leen ci gunge ci li nga xam ne moom mooy xew ci jiirub ñaar rakk yëpp incha allahu rabbi ñu ngi ànd ak équipe technique ñu présenté leen ko ci présentation bi sii di jaxatee la ci caméra bi ñu ngi ci ànd ak Talla Samb Serigne Mbacke Fall ak Bekaay Ndiaye fas yéene leen dëgtal lépp loo xam ne xewee na fa ca diwaanu Ndar bi nga xam ne ni foofu la màggale euh, ñaari rakka yi édition 2018 bi ren nag ñu ngi ko ñu fàttali ñu ngi ko tuddee Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke juróom-ñaareelu xalifa Serigne Touba. jamono ji. waaw waaw waaw waaw tubarkàlla macha allah moom fi mu toll nii wax dëgg yàlla am lépp moom yemu na Sëñ Tuubaa jàpp leen lépp ndax lu jiitu loolu demoon nañ demoon nañ ndar euh, saytu dëkk saytu saytu dalluwaay yi saytu hôtel yi yi nga xamante ne yëpp wax dëgg yàlla am kenn ku ci nekk boo ñëwee des na la wax dëgg yàlla am Euh, waruwaay it wax dëgg yàlla am jàppandi na lépp moom suñ borom daf na ci taw feex ñu mhm. ngi dégg sax ngeen annoncé ne place yi des na ba léegi ci waruwaay yi. waaw parce que euh, ñun euh, dañoo jàppoon ni sax xëy na mbooloo mi foo ko takk yegg na fa ndax daanaka boo dee xool yenn gox yi nga xamante si nii Sëñ Sidi Moxtaar nekkoon na fa muy demee ne ay Guimbind. ba ci yeneen dëkk yi demee ne ay tawfeex ay kër na yooyu yëpp fi mu toll dañ faa oto ñu dem fa waaw moo waral nag euh, mbooloo mi nga xam ne si nekkoon nañ fii mbooloo mi bari woon na takku na takku goo xamante si nii euh, dañoo dem ba ci biir sax euh, ci kaw loolu dañoo yokkaat oto yi dañoo yokkaat li limu oto yi ñu yoroon dañoo dem ci dañoo dem wutuwaat yeneen oto indiwaat fi ngir bëgg képp ku fi nekk rek da ngay daal di dem ci loo demeen boo xamante ne ci anam bu rafet lay doon nga xam ne duñ la laaj duñ la laaj benn dërëm doo paas doo def dara boo demee danañ la dalal dal bu mucc saytu ngeen xool lu yàgg bërëb dalukaay yi ndax ren am ngeen ci xel mu dal parce que at mu jot gis ne ne day manqué ndax ren euh, am ngeen ci xel mu dal waaw xam nga euh, mbooloo moo mel noonu parce que boo ñaare boo dee dem euh, li ngay war a soxla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xëy na lépp du du mën a mën a yem waaye nag ñun li nga xamante ne jot nañ koo xayma ci mbooloo ñi nga xam ne am nañ ko ak ñi nga xamante ne jóge nañ fi ngir dem ñun jàpp nañ ni lañ yor foofa danañ leen mën a dañ leen des na la mën a dalal foofu ci ci ci daluwaay mhm. waaw am ngeen ci xel am nañ ci xel mu dal wax dëgg am tey tamit nag bu ñu demee mbooloo mii nga xam ne si ne jël nañ leen fi yóbbu leen fi danañ leen saytu yóbbu leen ci dalli euh, toppatoo leen ba kenn ku ci nekk fa nga war a mën a nekk da nga fa nekk. ñuy déparé ci buntu kër gi yaakaar ne danañ am euh, tamit benn escale fële nga xam ne moom mooy Màkka Biragay. waaw danañ fa danañ fa def benn escale bu ñu fa demee ñoom it danañu danañu dalal foofu ñu wàcc xéwlu fa euh, bu ñu paree ànd ak mbooloo mi yóbbu leen ndar sëñ Bamba matub sëriñ nee ma lu ku sopp Seexul Xadim defal nii nu magal bàyyi sëriñ Saali sëñ Bamba matub sëriñ nee ma lu tax lanoo ni dafa yokk lam daan bëgg la lam daan bañ la gën a bañ xusnal maab ku sopp Seex ñu defal man yaa ma gën yaa gën ki gën ki ma gën ay mbakki lii nangu naa ko waaye yow dongu laa ko nangul ku sopp Seexul Xadim sëriñ bi man yaa ma gën Tuuba sëriñ bi man yaa ma yaa gën ki gën ki ma lii nangu naa ko waaye yow dongu laa ko nangul sëriñ Bamba sëriñ bi yaa yeew yaa mën a yeew as gor ba duutu fa jóg teraanga nga yeewe as gor pinti panta nga ma seexul xadim jugal taxa magal bàyyi sëriñ Saali woo seetaan 28 Pro TV ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ba tey ci caravane bi nga xam ne moom moo jëm Saint-Louis caravane euh, parrain bi nga xam ne moom mooy Serigne Sidi Mokhtar Mbacké njabootam nag ñoom nekk fi nekk ci teewaay ci kilifteef nag Serigne Moustapha di xalifa Guy Mbind xalifa euh, Serigne euh, Sidi Mokhtar Mbacké ñenn ñi nga gis nag ñooy waaw waa Guy Mbind ñoom ñooy yekk noonu waa kër Serigne Abdoul Aziz Bara ñoo bokk nañ ci ñi fi teew Serigne Baye Karim Mbacké moom mi nga xam ne moom mooy xalifa Serigne Abdoul Aziz Bara waaye ñi ngi fii nag ci Maka Bira Gaye Maka Bira Gaye di dëkk bi nga xam ne at mu euh, moom mooy dalal délégation pare bi ci benn escale boo xam ne dañ koy def mën mën fee dalal euh, gan yi mën a bernde mën a añ ba pare julli tisbaar ba bu ko defee bu ñu jullee tisbaar pare def fi benn waxtaan bu ndaw xanaa rek euh, ñu ngi tamit ci seen ci ay kilifa ñu bokk ci délégation bi ñu ngi fii ci Maka bi Gueye bokk na ci étape bi nga xam ne moom ngeen fas yéene teew fii ci délégation bi ngeen ànd waaw man maa ngi tudd sëñ Abdou Lahat di eh, jarbaatu sëñ Cheikh Sidi Muxtaar mi nga xamee ni moom lañ jagleel bis bi ñi ngi ànd ak señ mustafa cortège bi mi ngi jógee Touba bi ñu ñëwee jaar nañu Louga ñoo ngi fii ci Makka Makka fii la ñuy defee escale sëñ baa ngi nii agsi na mu ngi ci jàkka ji di julli su paree soog a ñëw ci bâche bi bis bi nag tey ku gis cortège bi xam ni sëñ Cheikh Seydou Moukhtar moom moo aaye. ci Makka Biraga yi nag fi nga xam ne moom la délégation parrain bi yegg si daal di fas yéene dallu lu toll ci euh, xaaju waxtu rek bu ko defee nag ñu ngi jàkkaarloo euh, toog ci jotaay Serigne Djili Mbacke moom Serigne mbakke Madina moom mi nga xam ne moom moo dalal Serigne Moustapha moom Serigne Seydou Seydou Moukhtar Mbacke moom mi nga xam ne moom mooy parrain édition ren ñaar rakka yi. xanaa rek euh, ay kàddu yoo xam ne ni maanaam dañ ko baaxee taalibe yi ci bésub tey bi ak fi nga xam ne moom mooy Màkka Biraage bismillahi rahmaani rahim tabaarakallaahu toog leen di jaajëfal ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy dox di ko liggéey ñu ngi ñaan tawfeexi Sëñ Tuubaa yal na leen ci dal tabaarakalla bisi bii nag ngeen ñëw mooy bis bi nga xam ni mooy ñaar raak yi nga xam ne Sëñ Abdou Xaadir Mbàkke moom Sëriñ Mbàkke Madina moom Cheikh Modou Moustapha moom Xaadimu Rasuul da ko taxawal fii ci Màkka Baraagi nga xam ni lim ci jublu mooy mbooleem njabootuk sëñ Tuubaa gi ñaari rakkay ndar yooyu di bis bu mag boobu nga xam ne ci la sëñ Tuubaa daande woon bi kun ko ci jox rek njabootuk sëñ Tuubaa gi tudde la ko ñoom sëñ Abdou Khadim Mbacke délégation boobu bi nga xam ni mooy délégation bi Serigne Sidi Moukhtar ci njiital Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Sidi Moukhtar bi ñuy agsi rek sous préfet moo ànd ak délégation bu mag ak chapeur ak gendarmerie ak mbooleem teeru ji leen tabaarakallaa bu ñu agsee gis ngeen min agsee noonu rek sëñ Moustapha Mbacke yëkkati na kaddu yu am solo ca matale waaye ci kaddu sëñ Cheikh Thioro Mbacke mi porte parole sëñ Sidi Mokhtar tabaarakallaa sëñ Sidi Mokhtar nag def xali juróom-ñaareelu xalifa Serigne Touba ku ne xam ko ci yoonu murid kenn laaj ko gis ngeen kaddu yooyu sëñ Cheikh Thioro bu ñu ko yëkkatee mooy kaddu yu am solo sëñ Abdou Khadir Mbacke mi it bi muy delloowaat ay kaddu di kaddu yu am solo yoo xam ne ci sunu kaddu gii noonu loolu na ko yëkkatee mooy kaddu sëriñ bi te mooy kaddu cant ak ngërëm ak bis bi nga xam ne ñu ngi koy defal woy juróom yi sëriñ Sidi Muxtaar moom sëriñ bu Xaadir Mbàkke ñu pëstéef bu mu mu woo mbokki taalibe yi ak mbokki murid yi ak mbokki bi ñu ne ak li wër Louga lépp ak mboolem dawaayir yi ñu àndante ak moom ngir liggéeyal Cheikhul Khadim tabaarakallaa gis ngeen délégation bi ñu agsee rek jataay bu am solo bi am ci tànt bi bi ñu wàccee jataay xéewlu teral gan ñi bernde leen ñu doog a wëy wuti leen tabaarakallaa kon bis bi daal loolu mooy sabab si mooy fas yéene teral waa kër Sëriñ Tuubaa ak liggéey Sëriñ Tuubaa ak feeñal euh, bëggub baayam bi Sëriñ mu am ci liggéey Seexu Xaadim euh, mu nekk kon euh, kàddu yoo xam ne mi ngi bawoo ci Sëriñ Jili Mbàkke moom Sëriñ Mbàkke Madina moom ñu fi gis mu toog yi nag fas yéene tamit bu ñu xéewloo ñëwaat ci moom mu ñaanal taalibe bu defee ñu dégguwaat fële jëm fële ren moom mooy ndar eh, fa la ñuy amalee nag ñaar rakk yi délégation comme ni nga ko waxee rek at mu moom moo fi nekk di dalal waa njabootu Serigne Touba gi ci bés bi nga xam ne nii moom la ñuy waajalee ñoom. Ah, yóbbu ko ñu yóbbu ko njaare ko njaare mbokk kon ñu ngi am mbégte ànd ak yenn comme ni ñu ko waxee rek gannaaw bi ñu toppee délégation parrain bu édition 2018 bi muy euh, parrain bi nga xam ne moom mooy Serigne Sidine Mokhtar Mbacké nekkoon juróom-ñaari xalifa yi délégation bi nga xam ne kuréelu waa kuréelu ñaari rakkay nag ñu ngi fii ñoom ñooy accueillir nag ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, délégation bi ñun nag dañ leen a jiitu maa ngi nag ak euh, sëñ Lamine Gueye bokk ci kuréel bi moom mi nga xam ne donc am na maanaam lu bëri loo xam ne dinañ ko leeral sëñ Moussa Fatou mi ñaari kaat balaa gan yi yegg si naka ngeen leen di fas waajale alhamdulilah gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi dellu yeesal suñu pas jëm ko ci sëriñ bi li ñu mën a wax daal mooy njabootu sëñ Sidi Moxtaar taxaw nañu ci mbir mi ndax sëñ Xaadim ñëw na fi si ay fan yu bari nekk ak ñun kuréel bi wane na ni waa Ndar yëpp waajal nañu lii dugal nañ seen loxo di leen seenu ñu ñëw ak jàmm fekk suñu ci jàmm delluwaat ci jàmm mm-hmm. ndar daal mobiliser pour xaar njabootu sëñ Sidi Moxtaar mi nga xam ne ndar kenn la woon ci moom ndar bi dëkkam la woon ndar fu mu xam la woon waaw loolu daal ñu ngi ci Pape euh, sëñ Sidi. kon daal choix euh, parrain bi ren am na solo lool. Euh, am na solo doublement parce que ñun ndigal li ñu ngi ko jëlee sa sëñ Muntaxa mhm. moom moo ñu jox ndigal pour ñu tuddee sëñ Sidi Moxtaar sëñ Moussa dafa ne moom du ci ŋang du ci wax tant que demuñu ci sëriñ bi mhm. ñu ànd sëñ Xaadim ak sëñ Galas Kantoum dem sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa rafetlu ko ni am ngeen ci ndigal pour def ko loolu moo tax ñun ñu am fonk bis bii taxaw ci pour def ko na na sëriñ bi bëgg woon ci ñun kon li mu la mën a xamal rek mooy ndar yëpp waajal nañ ko te pare nañ ko. te pare nañ ko waaw. jërëjëf sëñ maa ngi nag ak sëñ Moustapha Diakhaté bokk tamit ci kuréelu ñaar rakk yow ya fa mel ne commission accueil bi eh, mi ngi ci say loxo eh, naka ngeen di fas yéene waajal parce que délégation bi ren am na ñu jot ne dana ëpp na mu daan dikkee par rapport li ñu gis ci yoon bi. waaw jërëjëf xanaa ma leeral tuuti rek ni commission culturelle bi ah, la. culturelle la waaye co daanaka mooy màggal gi yëpp mooy accueil mooy lépp. Uh-huh. waaye ñu ngi sant yàlla du julli si yon ci al di gërëm Cheikhul Khadim di ñaan yàlla Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool tànd ak wér ak Cheikh Jëmb Fall. Uh-huh. comme ni nga ko waxee rek ñu ngi nii ci accueil bi di xaar waa Touba waaye ñu ngi ciy sant yàlla ba ñu suñu borom mayee ñu fekkewaat màggal gi. tuppee ko koo xam ne kenn la woon si ñun suñu soppe la woon mm-hmm. doon koo xam ne moo bëggaloon boppam kuréel ñaar rakkay muy Cheikh Sidi Mokhtar mm-hmm. kon sëñ Moustapha mi ngi si yoon wi moom ak njaboot Cheikh Sidi Mokhtar yëpp ak Touba yëpp mm-hmm. ñun ndar génn nañ di leen dogale pour ñu ànd dem ci daluwaay ndar nag ku ko xam xam ni dëkku teraanga la mhm. bu ñuy wax teraanga ba ndar fii la cosaanoo mhm. fii dafa doonoon dëkk boo xam ni Serigne Touba ci boppam moo ko tànnaloon boppam magi ndar yi dañ ñëw nett ni Serigne Touba dañ ne woon ndar ca kanam mu ne waaw ndar ca kanam ñu toog ba a ak waxtaan ni ah kon de ndar ca kanam la jëm ba a ak ñeneen ñi ne déedéet ceeru ndar ca kanam lay feeñ waaye tey bu ñu xoolee bi fan la feeñ ci ndar mm. pétrole bi fan la feeñ ci ndar dafa mel ni mm. waxi Cheikhul Khadim bi mi ngi waaj a ñëw waaye waxit na tamit ni bu ngeen xamoon li ormal suuf si nga xam ni Sëñ Tuubaa ci boppam wax na mag ñi ni bu ma doon taamu fu may gane si waat àddina ndar laa koy defee kon dëkkub Sëñ Tuubaa la ñu ngi gàttandu waa Tuubaa te xam ni fii Tuubaa ndar la nekkatul ndar rek kon loolu la ñu amoon si lu ñuy barkeelu rek waaw xanaa bala ñu jëm ci édition spéciale bi mu jëm ci commission bi nga géré muy culture bi am na leen lu bees lu xam ne dolli ngeen ko ci laataa gan yi di mhm. waaw euh, toujours rek xam nga màggal gi lu ko wuutale ak yeneen màggal yi mooy une semaine la une semaine parce que que màggal gi euh, xëy na sëñ ab Lahad moo ñu ci dimbali ndax moo ñu waxoon wutal leen jigéen ja bis muy cheikh muy soxna jaariyatullaahi moom bis boo xam ne bisu alxuraan bi la woon weesu na bërki démb waaye dañ doon jàpp ni sëñ tubaab bu doon dund ñooñu alxuraan dina leen teral defal leen i xéewal moo tax képp ku wàcc alxuraan ci at mi dañ lay bernde dañ lay teral dañuy teral sëriñu daara yi keroog ñëpp ñëpp képp ku dëkk ndar rek sa xol sedd ndax si bisu alxuraan bi waaye it ngontal maam Cheikh Fall ndax tu buñ nee ndar ni maam Cheikh Fall suñ Tuubaa yàgg na fi yebal maam Cheikh Fall te ñëwagu fi nga xam ni muy dëkkam maam Cheikh Fall am fi ay kër am fi ay titre foncier nekkoon fi ba ci lycée Charles de Gaulle rek titre foncier maam Cheikh Fall woon moo ko jaay tubaab yi kon ñu ngi liñ ci sof daal ci euh, mbir mi daanaka moom mooy euh, accueil bi daawoon na ci am Euh, la nuit du parrain tey ci guddi la mhm. suba la prière du 5 septembre présidée par l'imam sëñ Mamour Mbacké mhm. euh, xanaa di ñaan rek ñëpp fekk ka jàmm ak salaam te di xam ne màggalu ndar gi moom cachet particulier la am maggal mhm. goo dem da ngay dem ci sa kër mbokk wala sa kër sëriñ ndar nag da ngay dawal sa oto ba ñëw ni ana waa kuréel ñaaraake ñun ñu ngi nii ñun dama màggal si ñu dalal la di la bernde ba ba ni ngi fiy jógee kon fii nag loolu moo ñu ndax dëkkub Cheikhul Khadim la fii nga xam ne donc moom mooy euh, Saint-Louis euh, gis ngeen ko nag euh, bu ngeen xoolee décor bi ci gannaaw da ngeen daal di xam ne ñu ngi nag ci dëkkub teranga Saint-Louis du Sénégal Saint-Louis bi nga xam ne donc accueil ak teranga ak mën gan fii la fekk baax maa ngi nag ak le président ak le jëwriñ bi kuréelu ñaar rakk yi sëñ Ahmed Fall xanaa rek ay kaddu yoo xam ne bala parce que yaa ngi ci bërëb bi nga xam ne nii yaa ngi teeru gan yi ana noo leen fas yéenee waajale. waaw ah, salaamaaleykum. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala arshif xalf waaw fii du nekk moom sëriñ Moustapha la nuy gàttandu ak sëriñ Bass Abdou Khadre ak euh, sëñ Mamor euh, bu Cheikh Mouhamadou Mourtada waaw doon yegsi na waaw waaw waaw yegsi nañ kon mbokk yi gis ngeen euh, sëriñ bi moom moo yegsi noonu sëñ Cheikh Thioro dégg nga moom moo jiitu kon nii ñu fas yéene ànd ak yéen rek sëriñ Cheikh Thioro kon gis nga moom mooy nuyoo noonu ak waa kuréelu ñaari rakka yi moom mi ngi noonu di romb Euh, sëriñ bi nag euh, ki ba tey moom mooy yegg si nii euh, mi ngi noonu ci gannaaw ñu fas yéene ñu ngi noonu wàcce nañ verre yi sëñ bi moom moo nekk noonu di nuyoo ak waa kuréel ñaar rakk sëriñ Moustapha ñu ngi lay ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom moom moom moo jiite délégation bi ndax moom mooy taw Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke moom mi ñu tuddee ren édition ñaar rakka yi waa kuréel sëñ Moustapha gis nga mi ngi noonu di nuyoo euh, ñu bàyyi sëriñ Lamine Gueye tamit mi ngi noonu di nuyoo waaw euh, waa kuréel bi dafa mel ne kontaan nañ lool kontaan nañ lool boobu Moustapha. waaw wax dëgg yàlla kontaan nañ lool Euh, jëmm ji nga xam ne bu ku ko gis gis si di Mokhtar uh-huh. ci tey gi uh-huh. ci dal gi uh-huh. ci amuk taalibe gi nga xam ni délégation bi yëpp xoolal li fi nekk ci oto ko tey ci macha allah Touba yëpp ñëw nañ kon ñu ngi ciy sant bu baax a baax Cheikh si Mokhtar bis nag day nuru borom mais ku xam Cheikh Sidi Mokhtar xam bu wootee lislam bi yëpp koy wuy ñii du ñu muridi rek ñëpp xoolal délégation bi à perte de vue ñu ngi koy gis kon daal wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant kon ñu fas yéene. waaw jërëjëf euh, yi gis ngeen Serigne moom moo nekk noonu euh, def benn euh, pause bu ndaw euh, gis ngeen kon cortège bi fa mu toll macha allah comme ni nga ko waxee rek délégation bi tey moom daan na daan na tamit gis na ren bi moom macha allah ëpp na leen fi daan seetul ci ay nit ndax jëmm jin ko tuddee moom moo tax. Euh, koo xam ne bu daan woote ci lislaam àdduna bi yëpp dañ ko daan wuyu si tey nag bu waa kuréel bi jëree ñaari rakk yi dippee ko ko yaakaar naa tamit loolu dana feeñ euh, ci xel yi ci xol yi dana feeñ tamit ci jëmm joojee kon ne xam naa mbokk yi dañuy daal di ne ba yegg ndar rek àggale li ci des euh, ci ziar ak ci ay waxtaan jërë ngeen jëf yi seetaan 28 Pro TV ñu ngi kon am mbégte ànd ak yéen ci seen spécial euh, ñaar rakka yi nga xam ne donc ñu ngi koy amal fii ci Ndar Ndar nag buñ fay dugg nag kon buñ waxee Ndar moom mooy bu ñuy dugg ci pont bi euh, gis ngeen ne délégation bi nag bi ñu leen accueillir fii ci buntu Ndar ñu ngi ne def convoi nii fas yéene jubali euh, boori gouvernance foofu nag xam ngeen ne fa la histoire ba xewee euh, ci kanam na gis ngeen euh, benn délégation boo xam ne nii euh, cortège bi ñu ngi noonee ci kanam gis ngeen Saint-Louis du Sénégal Saint-Louis première capitale de l'Afrique occidentale Saint-Louis bi nga xam ne donc capitale de l'Afrique occidentale française la muy AOF dalal na ci ay histoire am nañ ci ay histoire yu bëree bëree bëri bokk na ci li nga xam ne moom moo fi amoon daaw mu nekk victoire bu mag ci euh, yoon bi muy victoire boo xam ne nii euh, ñëpp dañu am mbégte ne Feder bu daanu na loolu dañu war a sëñ Bamba liggéeyam toujours ca kaw rek euh, ba ñu ko gisee waaye nag dafa mel ne li nga xam ne tey moom la ñu gis muy jëm ci cortège ak délégation. Euh, musuñu koo gis euh, wala boog euh, juróom-ñaari xalifa Serigne Touba Mbacke Xaadim Rasul koo xam ne bu daan wootee l'islam bi yëpp adduna bi yëpp dañ ko daan wuy si moom nag moom moo moom la ñu tuddee tey édition yi kuréel ñaar rakka yi ñoom nag dañ cee am ndigalu Serigne Mountakha Bachir moom mi nga xam ne moom moo soññee nan nañ ko tuddee nag kenn koo xam ne kenn la woon ci moom daan ko liggéeyal ba tey liggéey bi ab si ci loxoom muy Serigne Mountakha ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér Saint-Louis du Sénégal moom la ñuy dugg si nii moom la nekk nii fas defee nag euh, dalal parrain bi Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Sidi Mokhtar moom moo jiite délégation mbokk yi kon ñu bàyyi leen rek euh, ngeen dund ambiance boobu lee fii ci Saint-Louis fii ci Ndar fi nga xam ne fii la lépp xewoon fii la victoire bi daal di amee ndax euh, dégg ngeen. bi ñu wootee rek fekk na fi ci ay kilifa yu bëree bëri bëri waaye moom dafa jël rek xalimaam daal di bind li nga xam ne moom mooy ñetti baatu dëgg yi wax ne yàlla kenn la jurut kenn kenn juru ko dëgg rek moom mooy feeñ te dëgg rek moom mooy mujj yi loolu rek moom la moom lañ leen indil tey fas yéene leen koo dëgtal mbokk yi seetaan 28 Pro TV am nañu mbégte ànd ak yéen kon dañ leen di bàyyi. alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan waaw kon euh, jërëjëf mbokk yi yéen a ngi koy seetaan nii euh, fi nga xam ne nag moom la ñuy waaj a euh, si nii ne moom ngeen seen noonu muy confédère bu confédère nag histoire la ci ndar. ndax biñ ko liggéeyaatee yàggut dara euh, dañ koo gën a yees la waaye ndax li mu daan recevoir ak li nga xam ne noonu la fi askan wi daan dikkee tamit euh, da daan am ay jafe-jafe bu ñu yeesalaat ko liggéeyub sëñ Bamba euh, xaadim rasool la moom moo tax parce que askan wi fi ñëw di fi dajaloo saa su ne di fi mag ñëw moom moo tax ñi yeesalaat ko liggéey ci liggéey bu rafet ñu ngi ànd ak nag baax Bakhe Thioune Euh, géwal sëriñ Touba Xaadim Rasul euh, baaxee. tey ne mel na ne ndar maa yëngu na nag. waaw ci dëgg dëgg dëgg ndar yëngu ndar yëngu na képp koo xam ne taalibe nga ak koo xamante ni sax doo taalibe murit euh, sa maanaam yow sa bopp ah, yëngu nga ndax sëriñ Touba bis bi dañuy fàttali la 5 septembre 1895 bis bi nga xamante ni sëriñ Touba génn na ana fan la génn. Euh, ci këram gi nekk Mbacke Bari këram gi nga xamante ne moo nekk Mbacke Bari moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi mu jógee Mbacke Bari ndeysaan dem Jolof ba mu jógee Mbacke Bari Jolof dem jeewal ndax ni euh, sama waa kër ñi tàqaleen maa ngi ñoom njaboot ga tàqaleen nan maa ngi moom mbir yi tàqaleen nan maa ngi ñoom ndeysaan kenn ci nekk di daanu gouverneur général yebal armée bi yabal ñu jël si sëriñ Touba Serigne Touba jóg ànd ak ñoom daal di fop Serigne Fallou ak Cheikh Mamadou Moustapha ndeysaan daal di leen di dénk seen bàyyi maam Thierno dénk naa leen yàlla ak maam Thierno Ibra Fati ndeysaan ba mu demee ba toll ak jeewal ndeysaan gawar gi ne ko yi tam mu leen day fanaan foofee la wax naan foofee la wax naan fa aye saminillahu inda jeewali iblisa isnaday toho biya wali waaye ba mu fa jógee nag daal di dugg si nag ndar ba mu duggee ndar noo ngi nii ci compo faydar bi ba mu ñëwee ba ndar moom sëriñ Touba fekk fi juróom-ñett fukki sëriñ ak ñett sëriñ Tuubaa nekkeel ñeent numéro 4 waaye gouverneur général fii nu jàkkaar lool mu gouvernance sëriñ Tuubaa xaadim rasul daa di ñëw taxaw daa di seere ne qul huwa allahu ahadu allahu samadu lam yalid walam yolad walam yakun lahu kufuwan ahad loola sëriñ Tuubaa seere woon moo waral bis bi tey nu bàyyi sëriñ sëpp daa di jiital maam yi donoog Cheikh bàyyi bas ak baara maam yi bas ak Cheikh Mbàkke ki nga xamante ni moo taj moo taj mboolem addina daa di wax nag ni sunu borom moom la nu ko addina àdduna ak alaxira sunu borom def na ni ginnaaw Muhammad jiitalu kenn ku dul moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul kataba rabbi annahu qaddamani ala jamil alamina sunu borom daal bind na ni jiitalu kenn ginnaaw Muhammad Rasulullah ku dul man loola waral ndeysaan gouverneur général a ngi nii boo fédéral baa ngi nii Serigne Touba Xaadimu Rasuul sunu borom fay na ko njaboot gaa ngi nii Serigne Sidil Muxtaar dañ ko dara jaale si moom lañ ko moom moom lépp waaye saahibil fadilati xalifa sana kullu murit Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér lépp ci ndigalam lañ koy defee noo ngi ànd ak sëñ Moustapha Mbacké xalifa sëñ Baara xalifa sëñ Sidil Makhtar waaye ñoo ngi ànd ak njabootu sëñ Baara gépp ak njabootu murit gépp ak mboolem umal islam bi ñu dugg si Ndar fii nag ci pont Faidherbe bi fii mbir mi xewoon fii fii mbir mi xewoon fii fi la mbir mi xewoon ana mbir mu fi xewoon fi la drapeau de l'islam yëkkati ko kan moo ko yëkkati Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nan la ko yëkkatee seere ba mu seere woon ci bureau bi ci ndar moo waral suñu jàmm ji tey moo waral suñu borom wax ko ni ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ko may naa la lépp loo bëgg mu ko lépp mu ne ko may naa rasulillahi alayhi salaatu wasalaam may na ko rabbam ma màgg mu bu ëllëgee loolee nag la ko may mooy nekkal ga mu nekkaleen rasulillahi fii ci kaw suuf daa di wax na ni man de xaadimu rasulillahi ci kaw suuf maay xaadimu rasulillahi fii ci àdduna ak ëllëg yawmal qiyaam képp ku mën a doon xamal ni man Serigne Touba maay ki lay jiitu ci liggéeyal rasulillahi alayhi salaatu wa salaam kon mbokk jullit yi noo ngi fii ci Pont bi kon ma joxe waat bi ba ci kanam bu ko defee ñu dellu soir sama xol dafa sedd moom la def ci mbokk yi nag bi ñu génnee nag fi nga xam ne moom mooy palais gouverneur bi ñu ngi nag yéeg nag beneen pont muy pont Guet Ndar bi fan ñu jëm nag moom mooy fi nga xam ne nii baaxoo dalal euh, le parrain de cette édition euh, muy édition bu nekk muy Kër Masouran Souran xam ngeen ne kooku moom moo baaxoo di dalal parrain yi foofu nag loolu kenn du ko teggi ndax kuréel ñaar rakka yi ñoom dañuy jël engagement ak lépp loo xam ne maanaam moo war ci parrainage bisu tey bi hôtel yi ñu romb népp nag euh, hôtel la yoo xam ne nii Euh, yu ci bëri sëriñ bi foofu lañ koy dencoon boo gisee biir palais gouverneur nag ca biir am na benn néeg boo xam ne foofu lañ ko yóbbu muy chambre numéro 4 foofu nag maanaam danañ fa dem mbokk yi wan leen fa histoire bi dëgg-dëgg nan la demee woon. waaye ci biir gouvernance am na ci ay euh, mbir yoo xam ne maanaam xew na fa ñi ci ne fii la julle woon ak fii la julle woon yooyu yëpp daan leen ko indil kon xam ngeen ne bi ñu génnee nag pont Ndar bi hôtel bi nga xam ne tey moom mooy hôtel de Rognon ci biir hôtel bi foofu nag moom mooy place bi nga xam ne dëgg-dëgg fa lañ ko euh, euh, gardé woon ci cellule boobu noonu ci bër benn instant laata muy wuyu ji gouverneur nee nañ sax fa la daan baagante nee nañ fa la daan bindee maanaam am na xasida yu fa bind histoire euh, lu ci bëri maanaam tamit danañ ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore euh, commission kon nag mbokk yi kër El Hadj Massouran Souran mi ngi nii moom la ñuy dugg noonu fii ci biir Guet Ndar la nag euh, nekk mbokk yi délégation parrain bi muy Serigne Moustapha moom Serigne Sidi Makhtar Mbacké kër gii ñuy dal nag ci woon moom mooy kër parrain bi kër gi nga xam ne moom mooy dalal parrain bi muy El ma Massouran Souran waaw menn ma moom moo baaxoo ba mu ko ba mu nekk ba léegi njaboot gi nag ñoom ñoo jël relève boobu ne ne nan ko dalal kon xanaa rek du ñàkk am na kàddu yoo ci yëkkati waaw xam nga ci suñu euh, culture balaa ngaa jël décision yoo xam ne ay décision yu rëy la foog nga diisoo sa baay yi foog nga diisoo ñi nga xam ne ñooy sa kilifa ñooy kilifa diine rawatina euh, xalif général moo tax balaa ma jël décision bi nga xam ne fas naa ko jël fas naa ko yéene jël euh, vendredi incha allah dama woon tàggu ko di ko koy expliquer expliquer lu tax ma nar jóg euh, seet nag sàkku ay ñaanam ak euh, ni ma ko gisee maa ngi ciy sant yàlla nag te incha allah ni ma ko waxee woon sànq. àjjuma sobee yàlla dans l'après-midi am na déclaration bu ma war a def. politique la ak élection yi nar a ñëw. Mm-hmm. tey tolluwaayu jàngat yow luñ waaw jafe-jafe yi bëri na waaye defe naa bu ñëpp toogee ci te waxtaan ci defe naa mën nañu am bunt yoo xam ne Sénégal dana jëm kanam. sànq jàmm jàmmi Casamance tey waaw xam naa nag ne euh, jafe-jafe yi wàññi na defe naa ni gouvernement bii nag ci wàll jooju def na defe naa li mu waroon a def kon nag ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp pour jàmm ji nga xam ne mooy li ñuy wax paix définitive maanaam jàmm ji nga xam ne mooy mooy li nga xam ne ñëpp ñu ngi koy xaar. ñu am ko te incha allah xam naa ni suñu mag yi xalif général ak yeneen bu ñu ñaanee suñu borom pour jàmm ji dellu si wóor na ma ne dina dellusi si. waaw loolu di ko xam bu àjjuma incha allah.